asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi naafila ak fukkeelu guddi gi ak juróom juróom benn rakka la rakka bu nekk fatiha benn yoon fatiha mooy bismillahi arrahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmi diin ba mu jeex ak suratu nasr benn yoon suratu nasr mooy bismillahi arrahmani rahim إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفاجا أمجا أك فنويري إخلاص أك جروم سورة إخلاص فنويري يون أك جروم سورة إخلاص موي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفا أحد سرين بنينا كوكو ديس ديس نكو نانغول أك te lépp lu ma sa def ci ay ñaawteef des na ko ko soppil aw yiwu te araf wu ci nekk des na ko ca tabaxal ab dëkk bu mag ci aljanna mel na ni itam ku lexal mboolem xeetu sayduna muhammad sallallahu alayhi wasallam sallam yépp kon mbokk yi naafila gaa ngi noonu juróom benn rakkaa la fatiha benn yoon suuratul nasr benn yoon ak 35 suratul ikhlas muy fanéri yoon ak juróom suratul ikhlas yana yàlla nangul ñu nangul leen salaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu